yàlla kat jaam ñaa ngi nii yitewuñ dara lu dul nga tàggale nag njàqare tawat ji wallahi alazim yàlla mën na caa def liñ ci bëgg insha allah te it fi ne bari na nu mënoon a jeexitalee te fekk na ñaanu gaa yooyu rek lañu ñu mel noonu rek la mënoon mënoon naa gën a metti foofu ndax ñun ku ne xam na ne suñ dëkk yii bëriwuñ ay jumtukaay yu bari yu nu mën a musal ci lu baree baree bare sedd bi nii rek bu yokkoon tey fi ne mara taali amuñu sofaas amuñu ay jaget kiwir yoo xam nangam ak nangam wala la muy jar mënoo koo jënd lii yëpp yërmande sunu borom kon yal na yàlla gën a dolli yërëm yal na yàlla gën a dolli yërëm moo tax loolu la wax lay sa tawasul bi saat am naw saalis la al masru moom imaam ibnu Taymiyya moo ko mu ne ñetteeli façon bi la mooy lan huwa tawassulu bi duwaay rajulin saalih loolu la wax léegi nag loolu noo ko mën a jàngate yow mooy lii sëñ mun di digle te sëriñ Saaliwu daan ko digle sëriñ Sidi Maxtaar daan ko digle kilifa yu baax yi daan jàng leen alxuraan toggal bernde ña koy jàng lan la ci jublu mooy dégloo sunu borom ba bu ko ñaanee sunu borom li mu bëgg mu def ko képp amut leneen amut leneen amut leneen ku ne xam ne alxuraan kenn du ko lekk kenn du ko naan mbirum sunu borom la moo ko war a yem kon alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu yàlla mayee kilifa yu baax su jamono demee fii su seen sunu sunu xel demee ci ñoom ñu am ak dalandi waaye bul woon ak ñoom tey jii kon danañ caalik kon dana métti ci ñun lool xadis boobu noonu la deme noonu la ci ñi baax ñi wax euh, boo demee ci lisaanul arab lisaanul arab benn téere la ay ay ay ay baat daf ne alshafaa kalaamu shafii lil fi xaajati yasaluhu li xayrihi kon nit sañ naa dem ñaanal nit nit sañ na ko léegi nag ki ngay def tawasul bu nekkee waa ju baax da cee rawati bu fekkee jëf ju baax da caa rawati bu fekkee alxuraan la wala tur yàlla lu man di doon yooyu waaye bu nekkee xaal mooy la musaa waxoon ba mu nekkee euh, Madiana ca wala ma tawajjaha tilqa a Madiana ja ba mu àggee toog situation yu métti lan la wax rabbi lima ansalta ilayya min xayrin faqir xool googu ñaan gu daw yaram rabbi lima ansalta ilayya min xayrin faqir amul dara génne ci pale kër Moussa kër musaa pale fa la fa la judd fa la yaroo ba toll noonu sunu borom nar koo def tarbiya ruuxiya ak mu jàng lu bari ci yàlla muy dem xamut fu mu jëm ba mu demee ba dugg Madyana dem ca farab ba nañu sàmmee mu xam ne fii léegi tey mu gis nit mu taxaw ne ko yàlla maa ngi nii lima ansalta ilayya min xayrin faqir yow ma dara maa ngi nii nii laa toll yàlla daal régler problème ca saasi man loolu la wax xaal maanaam nit ki situation bi mu nekk mu ñaane ci comme lu mel ni axis nii axis nii yaa ay wasilati xunaa wax xadan boobu Sëñ Tuubaa di wax nga xam ne bi mu nekkee ci biir eh, situation yi métti métti yi yàlla wallu ma ma waxut nii min al fujjaari wal baxri raani man génne ma ci géej gi génne ma ci noon yi loolu mooy ñaan ci si ci xaal yàlla dafa loolu bu ci nit ki ñaanee ak baat yi ngay jëfandikoo dafa taw yaram soo ko xamee dafa taw yaram daan yàlla wallu ma loolu la ñuy wax tawazzul gis nga jamono boobu dafa def tawasul ci xaal bi ndax xam na ne suñu borom moo ko teg moo tax léeg-léeg nit su ñàkkee su ñaanee yàlla dimbali waaye soo ñàkkee yow jàpp nga ne laaj rek yow daal doo ñaan yàlla mukk ci àdduna loolu day baaxul dañ ne nag allahuma inni asaluka wa atawazzalu ilayka bi nabiyika muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga baadal mawti riwaayaat yu bari xadis bi boo demee ahmad ibnu shabib xisaam ad-Dustawani Muas ibnu Hizam ak Soba ñoom ñëpp ku ci ne solo na lu bëri loo xam ne bu ko doon leeral tey ji waxtu wi day jeex kon nee nañ Ousmane ibnu Anayf bii am na benn waay bu dem ca Ousmane doon ko diis aajo mu mel ni dafa am jafe-jafe mu ne ko kaay ma wax la nu ñuy ñaane nee na mu ñëw mu ne ko indil jàppukaay bi mu jàpp ci misaal bu doon fii indil satala mu jàpp mu ne ko jullil ñaar rakka mu julli ñaar rakka mu ne ko waxal lii mu wax moom lam waxoon rasul ci sa bi sallallahu alayhi wasallam daan ne ko demal ci Ousmane mu dem ci Ousmane Ousmane faj aajom léegi nag ñoom munuñ koo weddi munuñ koo dindi xam nga xadis dafay doon ne boo demee ci saxi sixaax yi fekk ko ca kon dindi gi moom mëneesu ko la ca des nag mooy sara sara moom lu nekk ay wax la rek <laughs> sara moom sara rek la ñun ñëpp nañ ko déggee lañ koy déggee kon mel na ni bari na lu ñuy def ci suñ jamono bii mu dagan lool nit gis jàpp ne loolu dagan te fekk dagan man noonu laa ko gisee xoolal wa amal jidaaru fa kaana li gulaamayni yatiimayni fil madina diggante xadir ak Moussa Moussa bi mu amee jafe-jafe yu metti xoolal wa kaana taxtahu kanzun lahuma wa kaana aboohuma saaliha seen baay dafa nooy noonu ku baax ma jóg di ko defal waaye dem ba àgg ci fekk ab xale nga rey ko nga ne dama bëgg yàlla indil leen keneen fa mujj fan la wax daf ne wa ma faaltuhu an amri defuma ko woon sama coobare ndekete kon yàlla am na ñoo xam ne yàlla ngi ànd ak ñoom loolu nag mooy maayatullahi tabaraka wa taala maayatullahi soo demee ci risala aqida saxiixa bi ibnu baas bind def na ca benn benn tomb bu yaatoo yaatoo yaatu liñ tuddi maayatullahi kon ki ànd ak yàlla moom ñaare su ñaane suñu borom day jege yàlla lool maqam xurba lañ koy wax maqam moo xam ne mooy jege yàlla ud'uuni astajib lakum Abdullah ibnu Adham dañ ko daan dàkkentelee Aba Isaaq dafa ñëw ci marché Bazuray ñu ne ko yaa Aba yàlla nee na ci alquran ud'uuni astajib lakum daaw na allah tabaraka wa taala xatta taayimna walam yastajib lana mu ne xéexée kaay leen ma wax leen ñun daal ñaan nañ yàlla ba sonn yàlla wuyu wuñu nit ku baax la woon mu ne leen kaay leen ma wax leen fukki yëf a tax bu ngeen ñaanee yàlla du nangu ñu ne ko fukki yëf yooyu lu mu doon mu ne yéen a ngi nii xam ngeen yàlla bu wér waaye joxu leen àq yàlla ñu ne tekk mu ne yéen a ngi nii di jàng alquranul karim ak bëccëg waaye du ngeen jëfee li alquran wax ñu ne ah, nga dëgg ba neexut mu ne yéen a ngi yéen a ngi ne ci ummatu muhammad ngeen bokk ñu ne waaw mu ne lu tax du ngeen jëfe sunnas muhammad ñu ne tekk mu ne yéen a ngi nii nee ngeen dangeen a bëgg su ngeen faatoo du ngeen dugg sawara nu ne waaw mu ne yéen ngeen sànni seen bopp te sawara bu yàgg ñu ne ko wax nga musiba di mu ne yéen a ngi nii ne ngeen su ngeen faatoo da ngeen dugg aljanna nu ne waaw mu ne lu tax defu leen lu ngeen du leen dugal aljanna ñu ne ci mu ne yéen a ngi nii bés bu set nit faatu ma ne ko ci corona bi boo ñëwoon tey Sénégal wala feneen wala àdduna bés bu set faatu ngeen denc ko ca armeel ya ñu ne waaw mu ne su ngeen dellu see da ngeen defee ne yàlla du leen rey mukk da ngeen daal di def lu leen neex du ngeen ca waaru te dee ak waare képp lay jariñ ñu ne waaw mu ne yéen a ngi nii bés bu set ngeen sëgg ci derub nit di ko yàq te kenn ko ci ne yaa ngi am ayib ñu ne ah, wax dëgg yàlla mu toppee leen ko ba fukk ya mun leen lii tax bu ngeen ñaanee yàlla du nangu <laughs> dafa am loo xam ne day dox diggante nit ki ndekete kon ñaan dafa am yoon wun koy wutal kon nañ fexe ba di jëfandikoo sunna xam yàlla tey jox àq yàlla di jëfandikoo li nu alxuraan di wax te buñ dencetee nit ba noppi yonent bi daan wax ne uskuro maxaasina mawtaakum tudd leen lu rafete seen néew bii di ca wax lu rafet waaye daal doy na waar mu ko kon euh, Abdullah ibn Baas bi mu wax maa yatala daf ne allahu fawqa samawati bi saatihi mustawin ala arsihi yàlla nga ci asamaan waaye ma nga ca arasam fa nat mu daan ne fa nataqahul kitaab maa yakun min najwa salaasa illa huwa rabiuhum fi ne boo déyeeg sa moroom ngay wax ci nit wala nangam xamoo ne yàlla nga koy dégg yàlla nee na bu dee ñett maa leen di ñetteel kon lu mat a bàyyi xel la waaye mun na kon lam yaxtalifu anna allah ala arsihi aimatu salaf ayaanul umma abu nasr as-sajasi wax na ko sufyaan sawri malik mubaarak ahmad isaaqa fudayla xamaat ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne sunu borom mi ngi ci asamaan su ma stawala laas rek kon nag abu amr abu amr abdul bar daf ne ajmaa al ulamaa alsaxaaba wa taabiina alladina xumila anhum huwa ala ars wa ilmuhu fi kulli makaan yàlla xam-xamam baa ngi fépp ko ñoom noonu lañ ko waxee moo tax ñu ne alxaailuna bi xululillahi tabaraka wa taala bayna xalqihi bi saatihi xaaloo xilaafa alxaq nee na ñiy wax ne ñun yàlla dafa wàcc ci sun kaw maanaam yàlla day wàcc daal def jëmm jaxasoog nit ñi nee nañ wax nañ lu wuute ak li nga xam ne mooy dëgg kon su fekkoon xam yàlla la nag xam yàlla dana wàcc ci ab xol xam-xamu yàlla nit yi dana jege yàlla waaye yàllaa ko jege lépp nag ci yàlla la nekk ndax yàlla doone dafa ne ci biir àdduna doo ko wax doone wet gi fii la ko fare loolu kenn du ko wax dara génn sunu borom kon tawxiid boobu baax na ci lool ni ngi ko wax na ci téere bu ñuy wax al aqidatu saxiixa wa maa yu wa maa yu daad wa risala al soo demee da ko fekk kon nag udduuni astajib lakum yàlla moo ñaan leen ma may leen nañ leen koy wutal wasila soo demee ci téereb imaam ibnu qayyim al jawzi nee na faatixatul bii rek nee na day saafara daf ne man talaba al gaayatal ola ku bëgg lu rëy jamono bi léegi jii ku bëgg yàlla yëkkati fi mbas mi wut nga lu rëy wal matlabul asma walam yatawasal ilayhi bil wasilati al muusila lahu wa ilayhi bu boobaa lam bëgg du ko am faw nga jaar ko fi mbëgg moo tax na nga leen yàlla def leen salaatu ala nabi